insha allah est-ce que gëm ngeen ni élection bi dinañ ko gagner au premier tour est-ce que gëm ngeen ni dimanche à cette heure le Sénégal aura un nouveau président un président intègre un président jeune un président compétent un président patriote un président souverainiste et qui s'appellera Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Est-ce que gëm ngeen loolu moo tax nag moo li fi nit ñi wax te wax seeni crainte seeni li ñu ragal ci loo xam ne ci ay mbuxum élection bi la duñ ko teggi duñ ko weddi parce que xam nañ kiñ ko jë kiñ ko séqal ak kiñ ko séqal waaye nag askan wi dafa war a dëggal boppam ci dara mooy xamal ñooñu ni sàcc élection fii ci Sénégal mënut a nekk sàcc élection fii ci Sénégal askan wi dafa war a xamal ñooñu ni sàcc élection mënut a nekk parce que rek dañ naan sàcc ndënd yomb na lool waaye foo koy tëggee dina la jafe ñu wax leen ni bu ñu bëggee def loolu ci réew mi lu xew ci réew mi ñoom ñoo ko fi andi parce que askan wi ma gis du nangu ko sàcc élection yi ma bëgg nag interpeller yenn ci ay autorité jiital ci ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ñëpp am nañ njort ni ku jub la ku dëggu la te dina organiser élection yoo xam ne yu mucc ayib la waaye dafa am lu ñu dund dundaat ko fii ci réew mi moo tax ñu koy fàttali rek démb bi may nekk Dagana muy doomu Dagana foofu laa ko interpellé ne ko waa Dagana sas nañ la bëgguñu ñu xas seen doom bëgguñu lu ñaaw di jóge seen doom na nga organiser élection yi ci anam goo xam ne du am dara luñ ciy sikk sàkk ko gañe rek ñu xam ne kii moo gañe te ñun xam nañ ni ñun ñooy gañe incha allah xam nañ ko ma dellu nag di interpeller le conseil constitutionnel wax naa ko ci conférence de presse bi ñun sénégalais dañoo émotif mais c'est pas parce que conseil constitutionnel jël na benn wala ñaari décision yoo xam ne dafa mel ni loolu la askan wi bëggoon ñu gaawante ne SK yi am na coow yu fi tàkk te fayagul ci loo xam ne xamuñu lu conseil bi def ak nu mu deful kon bu ñu conseil bi sexalee dara ñu tàjj ko ëllëg mu ñëw wax ay résultats yoo xam ne demewul noonu dina jafe ñu weddi ko kon nañu wax ni tànk que conseil constitutionnel joxewul résultat yoo xam ne méngoo na ak li nit ñi voté nañu màndu ci mbirum conseil constitutionnel parce que nag xam nañ li xew ci réew mi te xam nañ gars yi lan la ñu capable kon ñuy interpellé waat conseil constitutionnel bi na fexe ba ñoom juróom-ñaar rek lañu ci 17 millions de sénégalais ñu nit ñi nañu fexe ba résultat yi nañ ko prononcé ni ko askan wi bëggee ak ni ko askan wi voté mbokk yi. élection bi dañ koy gagné incha allah gannaaw yàlla gisuma lu mën a tee ñu gañe ko coow li nekkul ndax dinañu gañe élection yi am déet mais bu ñu gañee élection yi ba pare fan lañu ñu bëgg a jëmale Sénégal loolu mooy coow li huit jours yi passé ñun on a sillonné le Sénégal du nord au de l'est à l'ouest on est allé à rencontre partout on est passé bu ñu paree di seetaan vidéo yi li ëpp ci commentaire yi mooy yàlla bu yaakaar tas sénégalais yi mënatuñu supporter yaakaar gu tas ku dem campagne ay milliers de jeunes topp sa gannaaw di daw pendant des kilomètres et des boo tëddee waroo nelaw waroo fëgg sa dënn di bàkku de responsabilité la boo xam ne Nous n'avons plus le droit de décevoir ce peuple qui a trop souffert. Et ce départ doit être le départ, le bon départ et définitivement. moo tax ku yaakaar ni bu ñu gañee ba pare ay séddoo la ay maa fi nekkoon ay sama wàll ndax nga sa bopp de je du fi amee du réew mii dinañ ko tabax te li ma bëgg ngeen gëm li ma bëgg sénégalais yëpp gëm réew mi dinañ ko tabax ànd ceeg tous les sénégalais toutes les sénégalaises yoo xam ne seen loxo set na am nañu compétence bëgg nañu réew mi fu ñu munti nekk dinañ leen dem jëli ñëw ànd ñu liggéey à commencer par tous ceux qui sont aujourd'hui coalisés autour du candidat Bassirou Diomaye Faye te ñëw bokk ak ñun projet bokku ñu séddoo réew mi de projet la ñu bokk kenn ku ne li nga yellool ci compétence dinañ la jox lu toll noonu ñu liggéey réew mi dinañ dem jëli la diaspora sénégalaise nga xam ne bi ñu commencé politique ba léegi gis nañ seen taxawaay de façon compétence bu ne ne fa dinañ ñëw ànd ñu liggéey les intellectuels sénégalais ñun dañoo am fierté am une élite intellectuelle comme celle-là parce que bu dëkk bi jaxasoo ba jaxasoo li manqué ci yeneen réew yu bëree bëree bëri nga xam ne doo gis intellectuel yi wax Sénégal da ngay gis intellectuel di signé ay tribune ne président de république fii nga teg sa tànk baaxul li ngay def du yoon li dëppowul ak droit loolu c'est la richesse du Sénégal à tous ces intellectuels là nous allons lancer encore un appel ñu ngi jëriñ yeneen réew jot nañu ñëw jëriñ seen réew muy Sénégal on a consenti trop de sacrifices mënuma bañ a rendre hommage d'abord ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan amuñu droit trahir ñooñu buñ ñu falee chaque jour bu ñu xëyee ku toog bureau na fàttaliku la cinquante de personnes qui a perdu sa vie pour que ce projet la aboutisse buñ ko fàtte mukk ñi gaañu ñii seen loxo dagg na ñii seen tànk ñi ñàkk nañ ci seen bët c'était pour que suñu jëlee réew mi ñu liggéey ko transformé ko ñi nga xam ne dem nañ ci kaso def ci ay jours ay semaines ay mois ay années ñenn ñi nañu xam ni sacrifice yooyu c'est pour que ñu ñëw liggéey réew mi mais pas ñu ñëw di séddoo waaye tamit ñi nga xam ne lu ne dañ nañ ko ànd ak ñun moo permettrait de rendre on hommage à la sécurité gars yi jàmbaar lañu de te fay ñu leen lu ko jar jàmbaar lañu 2017 ba léegi ñu ngi ànd ak ñun lu ne daj nañ ko ci ñenn ci ñoom dem nañu kaso parce que simplement dañ doon def seen liggéey à cette formidable jeunesse que vous êtes ñun on ne vous mérite pas mérité wuñu jeunesse bi on ne vous mérite pas lenn rek la ñu mën a def pour delloo leen njukkal mooy jël réew mi liggéey ko moo tax je veux terminer sur une note d'espoir parce que du tey du sama bés bésu candidat Bassirou Diomaye fay la moo tax du sori ci wax ji projet bi ñun ñu benn nit seetaan ko Pastef musul ak culte de la personnalité te yàlla li mu def sax boo moo gën ndax yàq ragal naa ni bu doon may candidat bi yàlla def ñu fal ma peut-être di ngeen ma rusee lu bëree bëree bëri président Diomaye dinañ ko fal duñ ko fal bàyyi ko mu dem dañ koy fal ànd ak moom parce que nag du du jëmmam moo ñu intéressé waaye projet bi ñu togg teg ko ci loxoom moo ñu intéressé bis bu buggee teggee ko ci projet boobu dinañu xëcc nopp yi ne ko sama rak dellusi si parce que moom moo réew man man man mi leen ko proposé man mi leen ko proposé xam naa ni Diomaye Faye du mus a jàdd lu toll ni tarfataay yàgg naa leen di wax ni moo ma gën a jub moom ma gën a am organisation moo ma gën am méthode maa ko dàq wax nag maa ko gën a boo waaye moo ma ëpp jub kon kon dañuy ànd ak moom ci liggéey bi ànd ceeg mboolem ñi ànd ak ñun ma profité ci di remercier toutes les formations politiques tous les leaders toutes les associations yi bàyyi seen yitte bàyyi seen gis-gis ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole ma bëggoon nag terminer sur une note d'espoir dama bëgg yéen jeunesse sénégalaise ak suñu papa yi nekk ci kër yi suñu yaay yi dama bëgg ñu xam ni à partir de dimanche bi nous entrerons dans le monde des possibles tout est possible rien n'est impossible que personne ne vous fasse croire qu'on ne peut pas incarner notre propre souveraineté nous serons désormais un État souverain indépendant qui collaborera avec tout le monde mais dans des partenariats gagnant-gagnant et non pas dans des contrats léonins c'est fini que personne que personne, et surtout pas les intellectuels complexés, certains intellectuels complexés qui veulent nous faire croire qu'il est impossible de renégocier nos contrats miniers et pétroliers qui sont au détriment du Sénégal. C'est faux, nous les renégocierons. Que personne ne vous fasse croire qu'il n'est pas possible de réfléchir souverainement